li ñu leen ko doon waxee suñu gan alaaji Malick bu la dara metti incha allah dinañ am yeneen jotaay yoo xam ne dinañ waxtaan lu ba lu bëree bëri ci uh, wàccaayu màggal liggéey bu rëy ba fa <laughs> sëñ Fallou def waroon nañ koo wax wax yàlla dinañ ci waxtaanaat bu la dara naqari waxtu weenu xaw a xoj <laughs> tuuti te suñu gan bi egsi na muy Papis Niang uh, Papis ñaa uh, moom mooy initiateur projet ceebu jën l'art de Penda Mbaye sëñ bi Niang ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm waaw salaamaaleykum maa ngi lay nuyu soxna naata di nuyu ñi toog si plateau bi yëpp gis naa fi suma ay grand yoo xam yàgg naa leen suivre. Hmm. depuis Walfadjri comme Souleymane. Euh, mu yàgg ñu informer parce que nous en tant que acteur culturel dañ jàpp ne il faut s'informer hmm. pour mën a euh, piloter ay euh, ay projets culturels yu am solo di nuyu aussi suñu naataango Ibou Diouf ñu on le considère comme acteur <laughs> culturel waaye parce que ñu ci suñu biir te ñu ñuy jàppale bu baax hmm. di nuyu aussi ñu nekk ci plateau bi yëpp mais Chérif aussi merci beaucoup euh, Papis Niang tey ñu waxtaanee ceebu jën ñu bàyyi Chérif mu door waaye ñun de Papis Niang art bi management dafa mel ni moom moo gën a moom a siiw ñu yàgg a seetaan clip bi n'est-ce pas Chérif ñu bàyyi la nga tàmbali. <laughs> Eh, Papis moom ku ne xam na ko ci mbiram aada ak cosaan ci la ak taxawaayam dèjà ñu rafet rafetlu loolu ñëw si nag ci li nga xamante ne siiw na trop. ceebu jën après yaa ngi sax benn film documentaire boo xamante ni def ngeen bande annonce beeg projection bi tuddee ko ceebu jën l'art de Penda Mbaye bëgg nga ñoo xam lekk soxna soosu aussi di Penda Mbaye waaw soxla soos di Penda Mbaye mi ngi juddoo fii ci dakaar mu ngi juddoo fale ci Ndar mais ay waajuram mi ngi juddoo fii ci dakaar donc dans le film euh, bi ñu yàlla dimbalee ñu liggéey ak euh, kilifa yu bëri jëm si benn projet bu ñuy tuddee fula aar ak cosaan maanaam yokk aar bu bu sosoo ci cosaan parce que ku na xam ne que suñu ay production yu ñu doon def jëm si wàllu vidéo dañ doon fësal trop lu jëm ci suñu culture jëm ci suñu habillement suñu coiffure donc te à chaque période dañuy jéem xool loo xam ni si suñu aada la mais luñ ko maintenant bi ñu euh, continuer si projet bu ñuy tuddee Fulaar ak cosaan boobu bi ñu accès si période Penda Mbaye li ñu njëkk xalaat mooy fexe ba Sénégalais yi découvrir kan mooy Mame Penda mbay parce que souvent nit ñi ceeb bi rek la ñuy jàpp. Mhm. pour ñoom c' est du nit ku exister surtout la nouvelle génération dañuy jàpp rek ni kii kat euh, wax la bu génn nii rek comme fecc bu ñuy wax Baara Mbaye comme leneen ainsi de suite et c' est pour cela lañu dem ba Saint-Louis am initiative euh, liggéey fa ak ay famille am ñu am chance nag rencontrer ay sët direct. Mhm. ñooñu ñoo ñu aidé découvrir kañ mooy Penda mbay maintenant nag. le film est en train d'être euh, afin euh, sollicité de diffuser euh, partout dans le monde ñu am si ay partenaires ak ay auditeurs yu bëri. xëy na duñ mun dévoiler lépp dans le film mais liñ si mën a wax samu gàtt mooy Penda Mbaye du cuisinière artiste la. Hmm. c'est une femme qui a créé euh, li ñu tuddee ceebu jën ak li si nekk lépp comme bénéfice comme partage. mais au-delà de ceebu jën bi artiste la bon xam dafa créé fekk boo xam ni tey boo demee partout dans le monde beaucoup de jeunes sénégalais. Hmm. ñu ngi ciy gagner seen vie. ñu ngi ci euh, ñu ngi ci jaay culture Sénégal ak destination Sénégal te loolu duñ ko faral di wane. Mhm. te pourtant loolu aspect bu am solo la parce que économiquement am na lu muy apporté. kon ci loolu ngeen jublu. Mhm. ci ci defar film bi. Mhm. ngeen xam ne ñoo bu jën ak Penda Mbaye. Euh, tout à fait si loolu lañ jublu te li ci gën a am solo mooy fexe nañ ba xam kii fan la juddoo fu mu bokk. fexe nañ ba xam aussi que li xam bi mu génnee àdduna fii lañ ko denc mais dans le film aussi on a réussi à découvrir que uh-huh. grace à concours président Léopold Sédar Senghor xëy na bokk na ci li gën a tas ceebu jën nekk suñu plat national parce que xëy na moom bi mu ko découvrir en tant que autorité te boobu nekkagul président uh-huh. jàppale na maam bi ba euh, liggéeyam gën a tasaaroo si àdduna donc secret Euh, Penda Mbaye ceebu jën nekk suñu plat national. Mm-hmm. lu ci bëri ci ci kilifa boobu la jóge ci Léopold Sédar euh, lan mooy euh, symbolique Penda Mbaye suñu sukkandiku ci mbirum destination Sénégal maanaam ceebu jën Penda nu mu tuddati Penda Mbaye de la destination Sénégal. effectivement parce que dañu jàpp ni fi àdduna toll mode ak ak mode ak. aada ak cosaan dafa bokk trop si li mën a gën a jaay Sénégal parce que aujourd'hui ni ko xamee ñun en tant que acteur culturel suñu dix dernières années yi voyagé nañ lu bëri ci àdduna bi mais fépp fu ñu dem rek dañuy gis que ni li ñu mën a li tax ñu mën a am particularité en tant que sénégalais artistiquement jiitu lu raw suñu kilifa ñoom euh, tonton ou suñu ay papa Youssou Ndour Bamal def ko mais dañu gis ni nous en tant que nouvelle génération d' acteurs dañu war a indi beneen touche si li ñuy def ñu ne naka lañ koy amee mooy nañu sukkandiku si li ñu jot a am mu nekk ay valeurs culturelles te mu mu nekk lu lu particulier pour ñun rek mu nekk lu identique pour Sénégal ñu ne nañ ko jël loolu fexe niñ koy adapté ak nouvelle génération parce que ku ne xam ne cette nouvelle génération dañ bëgg mode dañ bëgg coiffure dañ bëgg yére dañ bëgg taar ñu ne écoute pourquoi pas ne pas à travers ay image ak ay personnalité culte wala ay patrimoine comme ay Penda Mbaye élire euh, ay miss yoo xam ni du ñu am ay forme sénégalais du ñu am ay forme européenne mm-hmm. mais dañuy sukkandiku ci suñu ay valeurs traditionnelles mm-hmm. mu jëm ci suñu beauté suñu coiffure mais en même temps aussi ñu ne téemi den mooy si dernier cent ans yi lu ñu gis ni traversé na euh, adduna bi yëpp te kenn defalu ko promotion ndax pourquoi mu am promotion boobu parce que lu am qualité la moom rek moo nekk defal na boppam promotion defal na boppam promotion moom donc pour fu ñu dem si àdduna bi suñu gisee tubaab. wala chinois dafa naan bu duggee si restaurant sénégalais du laaj lenn du dul. ceebu jën ceebu jën te dina mën a wax ceebu jën autant que langue bu mën a laal. Hmm. mais euh, Papis Niang ceebu jën bi yaa ngi naan ci restaurant sénégalais mais ci liggéey bi ngeen di def ci di ko vulgariser et ndax xalaat ngeen wala yéen a ngi def di waxtaan ak ay chef yu mag ci euh, ay dëkk yu bëri ngir ñu dem ba fekk ko ci restaurant yi gën a mag waxuma restaurant yi nga xam ne ay sénégalais ñoom ñoo ko yor mën nga dem ci ay euh, endroit touristique yu mag yoo xam ne hmm. ay kilifa ñoom ñoo fay dem wala ñu am barke ñoo xam ne dinañ mën a gën a siiwal ceebu jën boobu noonu raison pour laquelle ñu élire Miss Penda Mbaye la première destination parce que ñun bu ñu avant ñu démarrer le projet def nañ njëkk nañ def benn tournée internationale dem si ay sites touristiques yu mag yoo xam dañuy naan dañu laajte ñun ñu ay milliardaires dañ fay fréquenter ay stars internationaux boo demee dëkk bu bu ñu bu nekk Italie bu ñu tuddee Sardaigne benn île la boo xam ni di fa fekk ay Beyoncé di fa fekk ñëpp si àdduna bi mhm. moi je suis parti mu jël fa ay contacts si ay festivaliers si ay annonceurs boobu du ma leen présenter le concept avant de le produire ici au Sénégal ñoom si seen boobu sax ñoo ma gën a poussé pour qu'on démarre d'abord le projet ici parce que nous notre objectif ce n'est pas uniquement dajale 5000 sénégalais ci benn salle parce que sénégalais yëpp bëgg ceebu jën ñoo bëgg Penda Mbaye mais notre objectif c'est de toucher plus de 500 millions dans le monde à travers contenu bi ñuy defaree fii Sénégal pour mun leen séduire non seulement ñu xam Sénégal mais ñu ñëwaat fii découvrir aussi yeneen merveille yi fi nekk parce que à travers image bi du rek ceebu jën la ñuy jaay mais dañuy fexe lépp loo xamante ni site touristique la lépp loo xamante ni mën na am apport économie jëm ci contenu audiovisuel ñun yi ñu xam naka la ñuy def à travers image bi pour jaay ko ci si àdduna bi donc fépp foo xam ni restaurant la foo xam ni festival la wala ay comme nu nga ko waxee festival gastronomique parce que ku xam na France moom seen seen tourisme li ko gën a may doore seen art culinaire si la bokk donc yooyu yëpp euh, là où on parle y a tellement d'étrangers même des Sénégalais yoo xam ne ay promoteurs la la où je vous parle avant muy dugg ci studio bi en Italie y en a presque dix qui m'ont appelé pour dire dites à au euh, au Sénégalais que nous nous sommes prêts à accueillir ça après yóbbu ko dans les milieux les plus chics d'État yi nga xam ne ay milliardaires ak ay kii ñoo fay fréquenté. Hmm. est-ce que mën nga insister euh, parce que souvent bu ñuy wax ci projet bi dañuy wane ay accoutrement traditionnel soxna yi ni ñuy solo ak euh, la calebasse la. tout à fait ban rapport la am ak li ngeen bëgg tout à la calebasse. leket leket leket boobu léguet la mais du du léguet bagaan la tudd lan hmm. bagaan la tudd à l'origine ki créé ceebu jën foofu la ko daan servir ñi ko daan lekk parce que en fait autant amul woon plat amul woon bool. Ah, donc waaw moo nekk nii donc bu ko daan servir nit ñi. du si bagaan mais këll bi aussi am na leneen lu ñu si expliqué woon bi contenu bi mu ngi si film bi peut-être que duñ mun dévoiler lépp lu nekk si. <laughs> Ah, non du lekk <laughs> mais bëgg yi ñoo koy yàq. voilà tout à fait loolu bokk na si aspect bi gën am importance mooy ceebu jën c'est pas pour rien mu nekk plat national parce que ci spectacle bi ñu mujj a produire. ñi ngi produire benn spectacle vivant bu ñu tuddee diwaan yi tey boo xoolee Sénégal nu mu bindoo lu mat fukki diwaan yi fi nekk yëpp ku ne la fa gën a abondant la fa gën a dox boo ko jëlee indi ko bu ñu ko dajalee dafay mel ni dañuy dañuy nduggi am lu ñu toggee ceebu jën ba paree mu nekk suñu plat national parce que tey boo nee Tamba boo bëggee togg ceeb foog nga am matt hmm. foog nga mun ko def boo waxee Bawol boo bëggee togg ceeb aujourd'hui foog nga am dëwlin te ku ne xam Bawol mooy le bassin arachidier ku nekk ak koy toggee ku nekk ak na mu koy toggee mais je veux dire diwaan bu nekk tey boo nee waalo ku ne xam ne ceeb moom fa lañ koy bayee mm-hmm. au niveau de waalo boo nee këll yi ngay gis ni lu si bëri law bay ñoo koy te law bay seen origine pël la ak tukulóor moom ñoo koy yett tey boo nee xorom il faut nga dem Saalum jëlee ko fa boo nee yéet foog nga dem Siin jëlee ko fa géej fo nga dem Casamance jëlee ko fa donc c'est c'est comme si le ceebu jën dafa rassembler Sénégalais yëpp dafa symboliser diversité bi mais aussi dafa symboliser que ni à travers le ceebu jën mën na am union sénégalaise. est-ce que fait que aussi euh, UNESCO def ko patrimoine mondial bokkul ci li leen gën a inspiré euh, pour ñu gën ko euh, dooleel gën a fësal li nga xam ne mooy jaay destination Sénégal bañ a yem rek ci balnéaire bi. bon wax ni inspiré que nous avant ça. Moi, dans mes données personnelles j'ai fait de des des pilotes si ay genre yu mel nii si ay ndata yàlla si ay euh, bëri na daal yoo xam ni ñu ngi doon def ay recherche bu ñu gënee am jot ñu ngi doon def ay recherche ci ay genre patrimoine yu mel nii mais facilité nañu ko parce que bi ñu demee aussi en France on a été reçu par Souleymane Jules Diop présenté ko le projet vraiment moom aussi mu apporté ñu lépp lu mu xalaat si xam-xam ak. mooy ambassadeur Sénégal mooy ambassadeur auprès de l'UNESCO mais aussi ñu si profité sax di si bereel ngërëm bu mag a mag docteur Massamba Gueye parce que. bu leen ex bu expliqué woon Sénégalais yi naka la def ba gagné nga euh, titre bi à côté au de Nigéria Ghana ak Côte d'Ivoire dinañ gën a lii dinañ ko gën a may doole fii Sénégal mais j'ai l'impression que. victoire bi ñu fa jëlee dafa yem si ay tweet ak ay message mais amul vraiment comme moom ni mu ko porté woon parce que auprès de l'UNESCO nee na leen lii su ko Sénégal gañewul dinañ am naqar parce que foofu la cosaanoo mais suñ ko gañee dinañ ko feete ba àdduna bi yëpp dégg ko. Youssou Ndour it def ci way wu neex ci ceebu jën. bokk na si lu ñu inspiré lu ñu facilité liggéey boobu parce que. icône bu mel noonu. icône culturelle bu mel da laa bëgg a may ceebu jën. Youssou Ndour bu mel noonu donc suñu liggéey. Ablaye <laughs> dafa dàgg. mais ñun daal li ñu gën a inspiré. ce mm-hmm. n'est pas le plat. mais plutôt l'art de Penda Mbaye. mais Penda Mbaye boobu. moom da doon toggantu rek ba mu ñëw naka la de euh, ba. inspiration ba inspiration bi en fait tout au début moom si famille. Euh, buy buy jaay yàpp la juddoo famille Boucher te ku wax yàpp wax da ngay proche de togg hmm. maintenant comme yàlla dafay maye talent may ko talent mu teel a ko togg auparavant nit ñi bu ñu daan togg ceeb dafa doon am aspect sombi hmm. doon woon mel comme moom moo si dugal dëwlin bi daawul wesan daawul voilà moo si dugal tay bi ainsi de suite moo si dugal aussi légumes yu frais yi donc loolu créativité loolu aar la ce n'est pas une cuisinière d'ailleurs dama koy faral di wax euh, ay amis journalistes yu bëri dama leen di wax pourquoi bi ñu euh, gagné prix bi lu tax au ngeen bind que kii artiste la ngeen di bind ah, la cuisinière sénégalaise elle n'est pas une cuisinière c'est une créatrice elle a inventé quelque chose. mais ci xew yi dañ ko daan woo muy togg. bon loolu ñun enquête bi ñu def. Mhm. am na ñu bëri ñu ko démentir daal. Mhm. que ñoom du ñu woon famille boo xam ni dañ doon togg si xew yi li tax mu togg buy. gën a siiw mooy talent bi ñu ko defee ku amoon gan boo fonk da naa dem si penn bay mu toggal ma pour mu am audace audace bi mu am ba changer façon toggin bi tout à ah, parce que moo ci dugal tamaate njamb tout à fait ah, jàmb ko ba mu baax dolli ci tuuti tamaate loolu loolu c'est vérifié voilà dool dolli ci dolli ci tamaate tamaate bi nga xam ne moo moo mooy tamaate bu fort bi est-ce que ñun la est-ce que ñun ñoo ko ci dolli suñu jamono yi waaw non a ci dolli njàmb beeg fël-fël bi concentré ko ci dolli <laughs> mais moom njàmb bi la jël daal koy taalaale waaye la mu njëkk a def mooy roof def jën bi ba mu baax saafu ko waaye da koo tëmbal. tout à fait yow moom yaa ngi suivre histoire bi. mi ngi noonu en ak la famille noonu la ñu ko. Euh, présenté quoi mais aussi am na yeneen aspect a am solo mu ngi ci dans le film peut-être à l'avenir avec la TFM dinañ am opportunité. Uh-huh. xool li ñu famille bi dévoilé comme information comme euh, comme euh, comme uh-huh. révélation mm. lañ fa collecté aussi si ay. Parce que faire un film documentaire, c'est ça, c'est collecter des informations ou des archives, faire des interviews, mais fa jëlee am na solo trop. Ah, pour Sénégal mun ko jëlee. Euh, Pape ci seen gëstu yàgg nañoo wax wax mbirum Penda Mbaye lan moo euh, lan moo waral ci jamono jii rek xañ na la ñu sentir euh, pour gën koo mën a fësal te lan moo tax it Sénégal du ñu romb peut-être benn place wala benn bërëb wala dara luñ ko tuddee bu fekkente ni parce que ni nga ni ñu ko waxee nii. Mm-hmm. moom bok na ci taarix ndax ku ne Sénégal ne ceebu jën te ku ne ceebu jën su fekkoon li ko Sénégalais yi di tudd par jour dinañ ko jox droit d'auteur cinquante francs rek famille am milliardaire ñooy gën a ñooy tout à fait donc pour revenir pour rejoindre juste li wax loolu ci plaidoyer bi la bokk mm. ñun lu ñu jour événement bi lu ñu gën a waxtaane ak kilifa yi fa toogoon c'est parce pas jusqu'à présent aujourd'hui amagul tali wala école bu ñu tuddee wala école bu ñuy jàngalee sax togg bu ñu ko tuddee mm. c'est le c'est le minimum maintenant loolu li ko waral rek mooy li tax fois peut-être am na une bon peut-être man ak équipe bu ma àndal li ñu gën a intéressé bokk na si suñu aar yi jóge suñu cosaan. mënoon nañ gën a vocaliser wu un peu si si hip hop bi wala si leneen loolu baax na mais ñun dañu gis que ni amuñu leneen lu ñu mën a lu mun def suñu particularité si àdduna bi du dul lu ñu am fii nga xam ne ñun rek ñoo ko am. voilà loolu moom mooy tax su ma enfin man expérience moo am si si voyage yu bëri mooy fu ma dem quand j'emmène de la musique moderne. peut-être même ñu ma xaw déglu noonu. Mhm. mais quand je viens avec euh, la culture de la danse des percussions. de mhm. tenue automatiquement damay je suis intéressé par euh, le promoteur ou ou le gars ki gère le spectacle. pour man amul beneen mobile bu gën a efficace. bu ñu mën a jaayee destination Sénégal parce que aujourd'hui Sénégal duñ développé loolu. d'ailleurs dama leen di gërëm sax parce que pour man musuma gis plateau journaliste di invité acteur culturel sans scandale. très souvent c'est ce que je vois avant ñuy invité acteur culturel boo xam ne c'est un peu négatif par rapport à la culture te doon ñu invité aujourd'hui su ñu amee tribune bu dajalee ay journalistes yu mag ñuy wax ci activité culturelle boo xam ni ay benn groupe d'acteurs culturels sénégalais def nañ ko dañ leen di ñaan loolu continuer mhm. loolu gën a bëri parce que y a tellement de créateurs dans ce pays mhm. mais lii tolof tolof bi rek mooy d'abord am ay nit yu am parce que on est avec les animateurs ils sont très bien ñun ñuy jàppale mais peut-être ak argumentation bi ak profondeur bi nag ci journalisme bu mën a gën a valoriser ñun lu ñuy def dina ci am solo te dinañu yoxal lu bëree bëri. parce que wax dëgg yàlla fa ñuy fa ñuy waxee rendez-vous di donner et di ñun nag am nañu lu ñu mën a yóbbu lu nga xam ne ay la yéwén ñun ñoo ko moomal suñu bopp teg leen amu ko. tout à fait ndax à travers le Penda Mbaye yaa ngi ci magnifier. l'élégance de la femme sénégalaise mhm, ah, ak i tamit suñu aada suñu culture suñu colin suñu doxin suñu feccin ak yooyu yëpp daf ci suñu coiffure suñu ay valeur culturelle gis nga naata ni mu def gis nga ah. musóoram gi tubaarkàlla macha allah donc yooyu dafa am solo te dañoo te suñu jigéen nag tubaarkàlla mm-hmm. daa am lu leen yàlla bind ni mu bindee woon suñu maam penn mooy loolu bokk na si lu ñuy saluer le 12 passé mm-hmm. dañu ñëwoon dress code bi ne nit ñi respecté seen aada ak seen cosaan lan moo ñu a pourtant sénégalais yi même de moins de trente ans bëgg nañ seen aada ak cosaan mais dañ leen defal opportunité pour ñu ñu dem embrasser ko bëgg ko c'était l'opportunité ce jour-là ñu gis ay jeunes filles de vingt cinq ans parce que dañ ne cette fois-ci bu ñu ko def entrée dañ ko def su des invitations privées mm. mais kuy ñëw dañ lay exiger nga jël sa xaalis mm. dañ jënd yére boo xam ni sa maam moo ko daan sol ak coiffure bu mu daan sol mu jaral la ko mm. et pourtant après l' événement y' a yu ñu demandé que ñu pérenniser ko. au lieu que ñu koy def benn yoon. ñu fexe chaque année mu am une fête culturelle nationale boo xam ne dina mën a regrouper Souleymane Niang ñu tàmm ko gis ak costume mais ce jour là ñu gis ko mu dem solu cosaanu maamam pour incarner ko aussi di ko décentraliser sax nga xam ne diwaan bu nekk boo leen fa demee ñoom ñu génn seen ay valeurs culturelles oui dans la salle y avait diwaan yëpp mm. de Casamance jusqu'à Dakar boo fa ñëwoon di nga fa fekk pratiquement mm. ku nekk si culture mu koy incarner mm-hmm. li problématique bi rek mooy assistance de, des autorités. Ouais, parce ministère de la culture ak tourisme quand même ñaari xeet ministère yooyu war nañoo jàpp ci projet yi. waaw en fait du ma wax ni jàppuñu si parce que on est là où je vous parle nous on est en contrat de de publicité pour le Sénégal avec l'AFTT depuis deux ans. Euh, bu ñu leen présenter le projet global si nañ ak ñun un contrat de promotion pour ça parce que. ñun suñu cible c'est pas le Sénégal c'est à destination Sénégal à travers la culture parce que pour ñun intellectuels yi baax nañ ils peuvent entrer dans des forums faire des des séminaires tout ça c'est c'est bien mais nasaraan yeeg étrangers yi moom culture lañ bëgg a absolument loolu lañ gën bëgg gis boo leen dee tu peux faire des séminaires le palais du Sénégal c'est très bien mm. parce que c'est de l'information mais l'action moo leen gën a intéressé mais il faut se baser aussi le papi sur les stars ah am nañ borom tour ñoom Sadio Mané nañ fi wax foofu Youssou Ndour ay xabi laam ñooñu ils sont suivis pourquoi euh, surtout xabi waaw gone ni sàggan ba italien yi jox ko nationalité te si loolu laa doon ñëw moo tax ma ni la sànq ñun li ñu def dañu bëgg a basé si les nouvelles ak li fi am comme opportunité pour ñu mhm. jaay Sénégal moom bokk na si ak ñeneen ah comme Sadio Mané et tant d'autres mais comme lu mu la wax rek su fekkee état ñu dañuy def à leur place benn liggéey boo xam ni passion lañ koy defee parce que nous on est des passionnés li ñu def ça reste une activité artistique maintenant su fekkee l'état qui est là qui nous accompagne au-delà même de financement daf ñu war a accompagner institutionnellement parce que si aujourd'hui fi ñu toll ci li ñuy def amul lu ñuy tuddee manifestation d'intérêt venant de l'État muy mm-hmm. këyit boo xam ni dina permettre Papis ou d'autres acteurs culturels bëri na. Mm-hmm. bu ñu demee à la banque wala ñu dem si ay privé ñu comprendre ni kii action bi ñuy def état sénégalais moo ko rafetlu moo ko dooleel. Mm-hmm. su amul yooyu dafay compliqué pour que ñu génn si parce que état même bu dee da la lu mu lay jox. à la limite mënul sax gérer les les un cinquième de l'événement que tu fais. du ko mun gérer donc du ñu négliger lu muy def mais pour ñu li ñu gën a amal solo c'est pas financement bi muy joxe mais nag créer ay conditions yoo xam ne ku yor nekk structure am expérience am loo jot def soo amee ay projet culturel yu mag di nga mën a à travers documents yi nga yor di nga mën trouver partenaire ou bailleur di nga mën trouver aussi banque bu la accompagner mais si toutefois bëgg a yemale lépp que pour man nos autorités. Mhm. dañu xaw a dëgër si document surtout au niveau de des acteurs culturels. Ah, d'accord waaw donc les manifestations mhm. d'intérêt les a les appuis institutionnels soxla nañ ko trop. nañu woyofal procédure yi. Mhm. sa <laughs> chérif procédure yi moom. <laughs> dafa gars yi dañ ko jooy ba dañ ko jooy ba ba ba tëdd. te fii Sénégal bu rëyul ñun ñëpp xamante ne. moi ce qui gère culture bi direction yëpp ñëpp xam naa presque ñëpp. ñoom aussi ñun ñuy yëngu ci terrain bi ñun ñëpp xam nañ kii kii qui fait quoi kan moom engagement kan moom passion donc aujourd'hui ñoom dañu war a sax avant ñun ñuy dem vers eux ñu ne mais à tel moment telle ou telle personne qui mhm. sont actifs il fait des mhm. choses intéressantes duñu xaar nañ ko woo mu ñëw ñu laaj ko c'est quoi son projet mhm. su manqué circulation ñu accompagner ñu structurer ñu mais l'idée de base nga xam ne ñun ñooy passionné ñoo am vision artistique bi uh-huh. ñoom mënuñu yem ak ñun on est moi toute ma vie c'est de la yàgg yàgg yàgg ngeen ci voilà merci beaucoup merci Papis Nia euh, merci hein <laughs> tëggoon rek non pour dire que remarque nga man dama maandu ci wax parce que. Ah. ñaari ñangeen bu ñu waxee ceeb ak ci suñu kal yi. ça va faire trop quand même donc ah, daal damay féliciter copies rek ça je waaye gis si nga bàyyi ko ak Falen yi ak jegeen ak Falen yi c'est ça Fatou bu fi nekkoon kon maanaam buy ñibbi dina dina bëri ay mbubb ndax ñaari ñangeen ñu fi nekk moom <laughs> <laughs> macha allah merci beaucoup bi tey xam teg ko waaw. sama xarit la wax naa ko depuis Paris. Akulay Akulay dinañ ci si am na am na am na fecc bu tudd ceebu jën am na am na sabar bu tudd ceebu jën moom mbandkat bu mag nga xam nga fecc yëpp <laughs> mais naa nga fecc bi moo ko créé ah bon ah wax naa la benn mbay tam moo créé ceebu jën euh, fecc bi mais bien ah moo créé danse bi ah oui ah, ah, ah tellement de choses intéressantes dans le ah moom ñu labelliser ceeb bi pour que ceebu jën bi nekk mm-hmm. ceebu. Euh, ceebu Sénégal. ceebu waalo ba pare. Mm. diwlin bi nekk diwlin gerte. gerte mm. absolument bu ñu defaree fii mais c'est ça notre concept. loolu la produit pour servir. exactement Souleymane defe naa da ngaa bi nga nar a añee tey ci midi moo tax nga <laughs> commencé ñu merci beaucoup Papis Niang nekk initiateur projet euh, ceebu jën aar Penda Mbaye jërëjëf merci beaucoup ci wuyu si. ñu ngi profité nag di gërëm bu baax Ibou Diouf. Uh-huh. parce que au moment on montait le une bonne pioche Ibou merci. <laughs> juste jaajëf au moment où on montait le film là. Ah. dañu soxla woon voix. bon man sax maa ngi en Europe. Ah. mais dafay des partenaires ñu ni ma vite fait. foog ñu xool li ngeen di mhm. mais il suffit que ñu woo Ibou parce que pour man moom laa gis ni il est il tout le temps avec nous. dañ ko automatiquement. ñaata lañ lay fay mu ne non. ci yéen la bokk wax nga ko donc devant tout le Sénégal. ñu ngi koy wax jërëjëf. di ko wax merci beaucoup. Euh, ah, merci beaucoup merci euh, beaucoup Papis. Euh, ah, dañuy jàll ci une l' ak journal record. merci chérie.